bismillahi rahmaani rahim sëriñ tuuba xaada lahoo laaw maxtaara naa wax waxin wuy tegtale ni cheikh ibra fall radiallahu taala anhu bu ko gisoon muy def lu juyoo ndigal yi du tee mu koy gën a topp na am na waxin yoo xam ni da dul teggin ci man ma koy waxe noonee moo tax ma indee ko nii te mooy maxnaa mi sëriñ bi nag ñi ànd moom ay xeet yu bari lañu ku ci nekk itam daana waxee yow fa nga toll wallahu aalam sëriñ Tuubaa xaadalawoo lawoo maxtaaralawoo nee na ku bëgg a am jàmm adduna ak alaxira da def li yàlla sunu boroom di digle di bàyyi li muy tere lu mu dogal mu neex la na loolu mooy al iman wal islam wal ihsan ci saxal ndigal ak bàyyi tere yi ci ngay dem ballu yàlla subhanahu wa taala dogal mu neex la bokk na ci ndigal yi néewal ay waxi neen wa taqulil xayra wa an siwaahu usmut yasir ridaahu ma tahwaahu sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo nee na l'islam mag la ku ko woyefal loo bari bari daraja du ñàkk lum la wàññi siiw na sëriñ tuba xaadala wala maxtaaroo nee na lu baax du jariñ kudul ka ko def lu bon du lor kudul ka ko def jëf rek ka takku siiw na man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha i'malu ma shi'tum innahu bima taamaluuna bashir wa ma rabbuka bi zalamin lil abid wallahu aalam Sëriñ Tuubaa xaada la woo law maxtaar la woo nee guddi gi la bëccëg gi ndab la loo ko feesale bu yowmal xiyaamee moom ngay dunde wér na lool Sëriñ Tuubaa xaada la woo law maxtaar la woo mas naa wax Sëriñ Mbàkke Buso radiallahu taala anhu bu ma la gën a gore siiw na li waral mu koy wax loolu dañu daan jëfandikoo benn tibb baraay bis bu set ñoom ñaar am ñu bëggoon sëriñ Mbàkke radiyallahu taala anhu bañ sëriñ bi ci loolu tey def ni nit ñi di def sëriñ bi wax ko loolu wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtarlawoo nee na ku ñuy tërbiya du xeex ku ñuy tarxiya du xuloo ku ñuy tasfiya du mer siiw na tarbiya yar tarxiya yéege tasfiya sellal wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadaloo laa maxtaar loo mas naa wax sëriñ mawlaay busa radiallahu taala anhu ni ko yéer ma ñu ma dugaloon seen maam muy soxna jaara radiallahu taala anha lay wax moo fa génne moo jàpp ci sama ñaari wagg ni ma ni ma tegg fee ni ma demal ci sab liggéey siiw na wala taxsibanna allasina qutilu fi sabilillahi amwata wallahu a'lam serigne touba khadalo wala maxtaaroo lo neena bi mi nek ci géej yoy yooyu yorub alxamis la ko yonante bi sallallahu taala alayhi wa sahbi wa sallam digal ni ko sa boroom gërëm na la man mi geureum na la doji ak garab yi seere nañu ko liggéey bi man na bu soobee yàlla gaaw bii ci ngay dellu siiw na loolu mooy gàttal gi am na waxin yoo xam ne nii li tax duma ko andiwaale day ñëw ci waneen waxtaan woo xam ni mooy gën a leer wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laahu maxtaarlawoo nee na ku ñu gërëm ku mu gërëm ku ñu gërëm nga ku ñu wóolu ku mu wóolu ku ñu wóolu nga siiw na ko am ngërëm daal ko gërëm am na ngërëm ku ñu wóolu yit koo dénkaat koo ko wóolu nan ko sëriñ mat laam radiallahu taala anu mas na ànd ak sëriñ tuuba xaadalo law maxtaar loo mu war kew fas muy dox yore daaji ba ñu soree sëriñ bi di boobu fas wi itam yolam lool sëriñ tuuba xaadalo law maxtaar loo ni ko mat laam yokkal pasteef bi mu daal di defaraat nu xaray fas wi sëriñ bi ni ko dollil paste bi junju kaala gi mu daldi takkaat lépp ba mu dëgër sëriñ bi ni ko waaw kay netaal ko foofu xanaa xamoo ni boo liggéeyee bis kii sax dañu koy fay wér na xëy na kaala gi lay wax mel na ni mbaxana itam wax nañu ci lu mel noonu wallahu aalam sëriñ Tuubaa xaada la woo law bi muy nekk jolof mas naa wax sëriñ Amsatu Jaxate radiallahu taala demal yoral ma sa baay Moodu Asta jox ko am mbubb ñaanal ko aku kurus ni ko boo jullee suba man nga dem ba mu jullee bay dem sëriñ bi junj ko mu toogaat ni ko bërëb bi soxla na la te xamuma lee noo koy ñàkk a defe mu ni ko abdourahman jaxate radiallahu taala anhu dana ko war a man sëriñ bi woo di ko ñaanal sëriñ amsatu ni ko ñaanal ko ba bu demee man koo yor sëriñ tuba xaadilahu laahu maxtaarloo ni ko boo ko ko yéenee rek wér na tuba xaadalahu laahu maxtaarloo nee na saa dama jox ndigal ci bu nekk tuuba daa di bindloo sëriñ mbàkke bu so radiallahu taala ab bataaxel bu jëm ca kilifa ga nekk ndar ngir mu boole koo ku ko liggéeyal te bañ koo nax waxoon na sëriñ mbàkke bu so radiallahu taala na jublu xibla te bu noppee nga jiite ko wér na am na ñoo xam ni mas naa wax ci ñoom fu ñu leen wutal ñu di fa nekk nañu ma fa wutal fa ñu jëm falaa jëm siiw na loolu mooy gàttal gi te mooy waxe sëriñ bi sëriñ bi nag war nañoo xam ni jikkoom ju rafet doy na waar lool loolu moo waral ñépp maase gërëm ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nee na waaye dara du ko yéwénal lu dul ñaar te mooy tabe ak rafet jikko kon dee leen teral diine ci ñaar yii wallahu alam bokkoon na ci bëggi-bëggi borom tuuba xaada lawo law maxtaara lawoo def jàngukaay bu mag ci tuuba boo xam ni réew mépp ñoo fiy jànge ak xaj màkka ak jumaa ju mag siiw na sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaara lawoo mas naa nuyoog sëriñ mbàkke bu sa radiallahu taala anu tey loxom bu baax ni ana mut lamin jóob ñu ni ko mi ngi nii sëriñ bi ni ko ashaabul jannati mu daal di tàmbali ilayka yaa xayral bariyati salaam xadimika allasi kafaytahu lmalaam salla alayka abadan maha salaam ali wal ashaabi rabbuna salaam ba mu jeex sëriñ bi bàyyi loxoom daa wax ñaari doomam ya mu àndaloon yéene gone yu bari solo ya sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo mas naa wax sëriñ Mawlaay Busa ak sëriñ Baaxe radiallahu taala na ku nekk tari dara sëriñ may lay tare ayetul kursi sëriñ bi jox leen mburu mu ñu dëbb mu am soow ak suukar weer na sëriñ Mbàkke Busa radiallahu taala mas naa bind ab kaamil jox ko sëriñ Masamba Faati radiallahu taala mu yóbbu ko gànnaar ci sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ba ko sëriñ bi xoolee woo ñépp ni leen kaay leen xool kaamilu mbàkke bu sa bii daa koy koy defarlul ak kees def ca sikki siiw na sëriñ mayow laay bu sa radiallahu taala mas naa bind ab kaamil sëriñ Mbàkke Buso radiallahu taala boole ko sëriñ Masamba Faati ako bataaxal ngir ñiir ko sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lowoo ba ñu ko joxee bataaxala ba mu jàng ko ñu jox ko kaamil ba mu xool ko ni ko dee ci seenu fay gu rafet mu daal koy jox ay way yu mu jëmale woon ci moom sëriñ bi xool ko ba noppi ni ko xamuma wax ji ak mbind mi lu ci gën a rafet mu daal di génne hadiyaam ni ko dañ ma dañ maa jébbale waaye damay jébbulu Sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaarloo ni ko lu ngeen di jébbalu yéen maa leen tax a dikki jamono wér na Sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaarloo mas naa dikk naawel kër Sëriñ Mbusoobe radiallahu taala anhu fekku fa sëriñ mbàkke bu sa radiallahu taala anu mu laaj aliwoom fekk mu toll sorotu tahi sëriñ bi bindal ko saar wa ba mu jeex ba mu ñëwee ba ñu xamal ko ko ca la topp sëriñ bi ba gis ko àndak moom siiw na sëriñ Tuubaa xaadalahoo law maxtaar lahoo mas naa wax sëriñ mbàkke bu sa radiallahu taala anu mënumaa teqali koog sa baay it mënulaa moom kon damay seet ci diggante bi foo xam ni dama la fay dël bu ma la soxla man laa gis bu la sa baay soxlaa gaaw laa gis daa koy dël fa ñuy wax woobe ca Daaru Salaam léegi siiw na sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo mas naa yebal sëriñ Mbàkke Busa radiallahu taala anhu ci waawoon siiw na li waral loolu moo ay téere yu mu fa doon lijjanti wallahu aalam Sëriñ Tuubaa xaada lawlaa maxtaar lawoo bi muy bëgg a jóge ci géej gi bind na bataaxel Sëriñ Mbàkke bu sa radiallahu taala anhu ni ko maa ngi bëgg a ñëw ni ko demal ca saalumu daarul mannaan ak daaru salaam ak daaru alim toog fa ning ma siiw na Sëriñ xaada lahoo laahu maxtaara lahoo bi mu nekkee njaareem la jox ndigal sëriñ Mbàkke bu sa radiallahu mu dem ca gànnaaru Tuubaa nekk fa wax ko la muy jàng fu mu jeexe mooy bërëb ba siiw na waxiin yi dana faral di am lu mel ni ak wuute waaye kuy xool nett li yépp te seetantal mën naa bañ a am lënt wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalahoo law maxtaar lahoo bi muy waaja ñëw tuuba woolu na sëriñ mbàkke bu sa radiallahu taala anu ca ñaareem mu nekk fa man ñaari weer siiw na sëriñ tuuba xaadalahoo law maxtaar lahoo bi muy nekk ci géej gi waxoon na maam cheikh anta radiallahu taala anhu boo demee neel ma numé na ma defal ñaari néeg daaru ma naan daa natt néeg ba mu nekkoon ci buum mu war tolloog ya muy defar bi sëriñ bi ñëwee ba nuyoog moom laaj ko ndax néeg ya àggana mu daldi di ba muy gisa waat ak sëriñ bi néeg ya àggana siiw na xëy na bi ñu ko ko waxee da ko doyul wala daa bëggoon dégg ci làmmiñu sëriñ bi wallahu maanaam alam sëriñ tuba xaadalahoo lawo maxtaarlowoo mas naa wax sëriñ abibu radiallahu taala anhu tuuba danaa fa am juma te danga ko jiite wér na am na ko masa xàcc ci ab sëriñam jébbalu ci sëriñ tuuba xaadalahoo lawo maxtaarlowoo sëriñam boobe di def fu mu dëkk mu di fa ñaan ba mu lakk mu daal di ñëw gànnaar wax ko sëriñ Tuubaa xaadalaw law muxtaar luxoo mu ni ko boo doy loo nga seet ca suuf sa foo mën a nekk nga nekk fa tey liggéey saa soo waree añ danaa la añal te yoonu kenn du ca nekk mag muy fo ak gone guy liggéey mën ñu ànd la muy def lu mu nuru nuru kiimaan mag muy fo rek kala yow demal liggéey siiw na lii mu mujj wax la muy def lu mu nuru nuru muy am fa dama yaakaar ni ki doon nettali moo ko ci yokk ngir leeral ndax sëriñ bi day xamle waaye daawul tudd nit fu mu nekkul wallahu aalam sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaalawoo nee na nee na yaari gor duñu xeex as gor akob saay saay duñu xeex ñaari saay-saay rek kay xeex siiw na xëy na dañuy xamal ni as mooy jullit buy bàyyi tere yi te bokk na ci tere yi xeex su ko defee ku dul bàyyi tere yi du as gor wallahu aalam